nga xam ne da toog fa la neex. wax loola nee. Mm-hmm. ñaan fa la neex demeewul noonu. Mm-hmm. ay yoon la.

loolu lan ngay seetee te boo xam ne ngay mujj seet. waaw seet nag. bari ay jumtukaay comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. ñenn ci ci ndox lañ koy defee. Mm-hmm. ñenn ñi ci euh, ay petaaw. doonte mm-hmm. daa xaraam. ak yeneen ak yeneen. waaye seet damaa seetlu ne. Euh, ñi ko mën ci réew mi te coow li bari ci waaye ñi ko ci mën daa bariwul. daa bariwul daa bariwul. coow lu bari na ci trop ci seet ndax damaa gis ne. Mhm. seet kër yépp booy diglu kii euh, wax ji mhm. duñ la jox solution waaye même wax ji la ñu wax ñoom ñëpp benn wax lañ lay wax mhm. yaakaar ji mu tas nangam nangam sa bopp day métti sa biir day métti lu ñu dal nit ki rek lañ lay wax loolu dal ki lañ lay wax te loolu amul sens ndax nit ki loolu taxul muy seetlu boo koy métti kenn ku ne xam na ne dund ak wéré di ñoo ànd dëgg la tax yooyu amut amut amut amut amut amut kii ci seet seet li ci gën a farata mooy nit ki daa jaaxle ci boppam moo xam ak ñàkk ko dab wala wér wala wéradi wala mu jaaxle ci ak dundam ak dund gu jaxasoo mhm. wala muy jàpp yoon wala mu am lu mu bëgg bëgg ko xoolal mhm. nit ki bu ñëwee di la xoolloo da koy wax solution dëgg la lii moo tax sa àdduna mënoo avancé nii ngay mhm. def ba mu avancé dëgg la lii moo tax sa wërsëg ni mu demee ñemewul demewul noonu ñii hmm. ngay def ba mu demee noonu dëgg la li tax boo xëyee di doñ doñ wala ngay liggéey ba sonn te yow nga gis ni mënoo dajale dara hmm. solution baa ngi nii moo xam luñ lay ak ñaan la gooy def wala ak sarax la booy dem génne yëf yi wàcc la dëgg la loolu mooy solution seet waaye wax ju bari ji amu ci njariñ ñii nga koy defee bi nga gisee lii bi nga amul njariñ dëgg la nit ki da nga naan ko lii ngay moytu lii ngay def lii ñëw lii hmm. ngay bàyyi lee ngay def sa xéewal ñëw hmm. loolu euh, li nga xamante ne moom mooy wàllum nopp parce que tamit seet ni mu amee bay rek ku nekk naan maa ko ñu bari noonu lañu ko jàppe parce que maara yi bari da dégg sax ku la mën naa nopp léegi léegi mu jàpp léegi léegi hmm. euh, loolu suñu borom lim la ci la parce que nag wax dëgg fa yàlla xam-xam nopp waaw léeg-léeg ma dégg ci 24 heures xeet gu ne. Hmm. donte mën naa ne ndax xam-xam moom yemalewul dara. wax dëgg yàlla te it yemut fenn te it xeetu xam-xam bu nekk. Hmm. suñ borom mën na koo def. waaye tamit moom it mook mook mook mook mook seetayam. ndax waaw ni niiw naat. Hmm. ñu la koy defal donte ñi ko mën ci réew mi bari na waaye niiw na ñu la koy defal nga bëgg ko ni nga ko amee. dëgg la suñ borom nag defal nañu ci loo xam ne lu ñu liggéey la ci wàllug noob. ndax. nopplee léegi eh, duñ koy defal nag koo xam ne xëy na ay caaxaan a ko tax a jóg mm-hmm. ndax liñ ci yor mm-hmm. su buñ ko xasee ba jaarale fi ñu koy jaarale wala ñu def ko ni ñu koy defee mm. ilaa yomi du du deñ du deñ ah waaw moo tax ngir ñu defal ko nit sax danañ am confirmation kane mm-hmm. soxna si da koy takk wala góor gi dafa bëgg nekk moom mu nekk ak boroom këram waaye ay caaxaan taxut ñu def ko ndax liñ ci yor day lu wéer a wéer a loo xam ne du deñ dëgg la léegi nag euh, euh, moom noob googu. Mhm. mën nañ koo defal boroom kër soxna ñu defal ko boroom kër. Mhm. wala borom kër ñu defal ko ko soxna wala nit koo am yéene ci moom ngir takk ko soxna. Mhm. beneen ba it. Euh,